ami site internet Buzz Actu 221 dal leen ak jàmm ci seen tënkum xibaar mbir mu doy waar nag moo daal di xew fi nga xamante nag moom moo ca doy waar nag benn waaj bu wuyoo ci turu nag Xaadim Ñak nag moom moo wax ne rek ab colonel la waaye nag dafa déclaré ne moom colonel la te nekkul nag benn yoon colonel moom atam mi ngi toll ci ñeent fukki at ak juróom-ñett moo def ab escroquerie boo ne rek mbir mu doy waar nag def ko lu toll ci juróom-ñeenti commerçant ñoom ñëpp rek la daal di rëq seen digg nag ba noppi rek daal ci takk kenn ci ñoom seen doom moom nag ngir réussir ci ay cours am nag dafa doon wax ne rek ab colonel policier la te loolu yëpp dara amul ci mbir mu mel nag jamono ji observateur nag moo ko daal di fësal rek niki tey jii moom nag bu ñu sukkandikoo ba tey ci observateur na ne niki 2022 nag ba nëgëni rek kii di xaadim ñaa nag da doon dugg ci magasin yi di daal di jël yenn ci ay matériel nag di ko daal di ko jël di ko nangu ba noppi nag di ko jaayaat ma nga dëkk ca fi ñuy wax cité Kër Massar mi nga dëkk fu ñuy wax waa nekk ca diwaan bu Kër Massar moom commerce boobu moom commerçant boobu nag da doon def ay deal nag jëmale ko nag ci ñenn ci jaaykat yi ku ci mel ni Fatoumata Niang ak ay njabootam waaye nag bi nag la mu gënoon di ñuy jaay télévision ak écran plat ñooñu la gënoon a sonal jamono ji nag moom nag da doon dugg rek ci yooyu les places nag di fa daal di évoquer mbir mu ne mais bu ñu sukkandikoo ci Fat Diop nee na nag Xaadim Niang nag da doon jënd cent cinquante mille francs CFA daal koy fay fi nga xamante ne nag mooy ca Wave ginnaaw bi mu defee boobu la dépôt rek ci téléphone doomam nag mbir mu nu mel nag la commencé di ko escroquer ndànk maanaam daal di jël ay xaalisam ndànk-ndànk ba tey rek observateur nag la daal di xam ne rek moo di faux colonel boobu nag da doon profité rek ci ay transaction yoo xamante ne nag mu ngi ko doon enregistré ci kii di turu Fatou Diop ngir def mbir mu nu mel ci loolu nag kii di Xaadim Ñaa nag ba léegi bàyyiwul woon béngulee mbir dafa dafa daal compliment rawatina nag ci boobulee mbir ginnaaw bu mu gisee rek ne kooku nag am na ay bien lool ci mbir mu nu mel nag la daal di ñëw nag daal di koy xamal ne ko moom nag tey dem Europe di dem ak waaye nag yóbbu ko Europe di dara ci moom mbir mu nu mel nag fëq kii nag ba waral nag mu demandé ab divorce ngir remplir li nga xamante ne nag moom mooy rêvam jamono ji nag dafa encaissé ci moom nag xaalis bu bari ca foofu ca marché bu Kër Massa ba tey rek moom xaadim ñaa bàyyiwul de dafa tànte war rek defaat mbir mu nu mel jaarale ko nag ci ay échange téléphone ba del li nga xamante ne nag moom mooy demande kii di Fatou Diop ki préparé ko carte nationale d'identité ak passeport am ba noppi nag laaj ko li nga xamante ne moom mooy carte commerce ak NINEA ba noppi rek laajaat ko li nga xamante ne nag moom mooy ab registre de commerce ginnaaw loolu nag la daal di dalaat nag ci ki nga xamante ne nag moom faux colonel boobu nag moom nag la mu daal di xam le waa rek dafa laaj cent soixante dix mille francs rek ngir verser li nga xamante ne nag moom mooy ay frais ak formalité yoo xamante ne rek ñeel na tukki bi bañ ginnaaw bi ñu ko joxee xaalis bi naka ci la dekkee sa mbir mu nu mel ci vitesse bu gaaw a gaaw a gaaw ba ba rek moom mi nga xamante ne nag moom mooy xaadim ñaar da ko daal di def kii di Awa Sow nekk ab commerçante boo xamante ma nga ca cité Mtawa nekk ca Kër Massar Fatou Diop nag moom moo ko boole woon ak moom ginnaaw nag confiance gi nga xam ne am na ko ci moom nag ci mbir mu nu mel rek la ko booleeg jëkkëram rek ngir mu uutal ko li nga xamante nag moom mooy visa express daal di koy jox lu toll ci quatre mille francs bu fekkee Awa Sow nag joxoon na ko ab avance bu toll ci deux cent trente yooyu les ba tey naka kii di Fatoumata Niang nekk gorom moom naka moom moo nekk troisième victime boo xamante rek Khadim Niang na ci moom lu toll ci da koy waajal rek ngir mu tukki ginnaaw gi dafa quatre cent mille francs ñoom ñëpp nag da leen daal rek dóor marto ba tey rek moom Khadim Niang nag jamono ji nag mu ngi doon waajal ab opératoire nag ngir génn réew mi waaye nag lépp loo xamante ne rek am na ci moomulee mbir nag fi nga xamante ne moom mooy ci tribunal grande instance bu Pikine ci kanamu attekaay yi moom nag weddiwul mbir mu nu mel ñeneen ñi nga xamante ne nag ay victime lañ ci moom ñi ngi wéyetu turu Muxtaar Buup Aliou Mbengue Papa Malick Diop ñoom ñoo ñëpp ñëwoon nañ nag kenn ñoom kenn assisté wul nag li nga xamante ne nag moom mooy boobu les ba tey rek bu ñu sukkandikoo ci délit yi nga xamante ne nag def nañ ko ginnaaw bu mu ne moom ab colonel la faux colonel boo xamante ne nag jamono ji nag lañ koy toppee moo di maanaam daal escroquerie luubal xaalis yu réew mi daal nañ koy tëj nag atu kaso ba noppi rek di sàkku nag mu fay nag mbir mu nu mel ba ñu sukkandikoo ci suñu naataango yi Seneweb ñu ngi leen di jaajëfal bu baax ci safoo bu leen fàttee abonné ba sax la de notification ngir amaat yeneen i info